Balla Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay madame madame Ngom. yow yaay coordonnateur cercle des jeunes entrepreneurs bu MEDES ñu am mbégte dalal la ci sunu matinal bi tey euh, tey jii MEDES di amal sixième édition salon des startups ñu naan ko Afritech lan mooy solo salon boobu ak lan la si ndaw yi mun a xaar. waaw solo solo salon bi mooy wan wan ndaw yi opportunité yi nga xam ne mën nañ ko saisir. avec avec la technologie donc euh, ndaw yi dinañ ñëw fépp ci Sénégal di buñ ñëwee dañuy dinañ nekk dinañ nekk en rencontre avec des experts dans le domaine donc euh, dinañ mën a échanger si si tous les aspects qui tournent autour de la de la technologie et dina am panel yu ko yu ko accompagner panel yoo xam ne dina wax ci financement des startups euh, xam nga ne financement le financement c'est un c'est problème pour toutes les entreprises du Sénégal surtout pour les jeunes qui qui à se développer donc salon bi occasion la pour ñoom ñu déglu ay experts du du financement yoo xamante ni dinañ leen mën a wax euh, financement fina nan la ñuy def ba am financement ak euh, lan mooy lan mooy solos financement boobu et bu ñu amee financement bi aussi lan moo koy jëfandikoo lan la ñuy def pour jëfandikoo ko parce que financement rek du du assurer ce développement projet heureusement que salon bi ah dina mettre en place des experts yoo xamante ni dina wax ak ñoom dinañ wax ak ñoom nan la ñuy def ba ba ba ba ba yegg ci financement boobu mais surtout surtout bu ñu amee financement bi nan lañ ko mën a jëfandikoo ba mën a développer seen projet donc si ay ci ay thèmes am solo yoo xamante ni ndaw yi dinañ am occasion partager ko ak experts yi koy yi koy animé. Euh, salon bi bi mooy juróom-benneelu yoon ngeen di ko def euh, juróomi édition yi passé lan lañ si mën a jàpp ak bu tey bi lan mu koy wutalee ki jot a am. voilà édition yi yi jàll liñ ci mën a jàpp mooy. ndaw yi Sénégal dañoo xarañ ndawu Afrique en général parce que salon bi maanaam dafa dafa bokk léegi ci daal ndaw ndawu Afrique yëpp boo ñëwee ci salon bi di nga gis ay ay xale yoo xamante ni daanaka duñ sax ay sénégalais ay africains mais dañuy am ay projet yu yu xarañ daal donc solo salon bi loolu lay firnde dafay firnde ne Sénégal am na ay borom xam-xam Afrique am nañ ay xam ay borom xam-xam te comme on a l'habitude de le dire en fait la technologie c'est c'est c'est le seul moyen où on peut rivaliser avec avec ou même faire plus que parce que il suffisait d'exploiter le les notre connaissance donc salon bi gis nañ ay xale yoo xamante ni am nañ xarañ ka boobu li koy firnde mooy chaque année dañuy gën a bari non seulement dañuy gën a bari mais projet yi dañuy gën a xarañ parce que da ngay gis koo xam ne dañ dafay defar dafay dafay dafay defar benn projet rek mais déwén da koy parfaire de manière extraordinaire pour dire l'import importance bi bi ñu jox salon bi quoi moo tax euh, édition sixième édition bi bon euh, bi bi am tay gi wax dëgg yàlla séntu nañ ci xale yu xale yu xale yu ëpp yi yi doon ñëw bon et gis nañ aussi projet yi aussi gën gën a xarañ par rapport ak yi fi doon nekk. tey lan ngeen di indi lu bees si si si salon bi parce que MEDES xam nañ ne tout le temps dafay innover dafay dafay gën a yaatal dafay gën a ñoŋal sixième édition bi es ce que am na ay surprise yu ngeen yu ngeen réserver ndaw ñi et justement lan la ñu si mun a séntu véritablement. waaw le MEDES comme vous la dit c'est c'est la constance dans l'excellence et surtout l'innovation chaque année dafay dafay indi lu bees et édition bii nii dafay dafay firndeel loolu. parce que am na ay xarañte yu bëri yoo xamante ni bon ndaw yi fi nekk dinañ ko dinañ ko dinañ ko xam tey notamment en ce qui concerne la le, le financement des startups mais surtout euh, Euh, la la la mobilité parce que xam nga intelligence artificielle dafay jouer rôle bu am solo ci mobilité su ñuy wax mobilité dañuy wax par exemple ci yenn xale yi déplacé wu di dem ci ay di di jël gaal gi wala di kii wala surtout dans le cadre de euh, de de l'économie du commerce et tout ça donc intelligence artificielle da ciy jouer lu am solo donc euh, à part mobilité ci sécurité donc intelligence artificielle dafay jouer lu lu am solo ci ci ci. sécurité même xale yi proposé seen projet sax da ngay gis seen projet dafay accentuer ñii dafay accentuer ci domaine de la sécurité ñii ci ay par exemple mobilité ak yeneen domaine donc yooyu yëpp ay ay ay xarañte bees la yoo xamante ni salon bi dina ko offrir et dina permettre xale yi ñu ñu gën ci xam lu bari. lan mooy temu ren bi pour euh, sixième édition euh, salon des startups. waaw temu temu temu ren bi en fait euh, salon bi amul benn thème global mais ce sera accentué sur beaucoup de thématiques des thématiques très importantes yoo xamante ni dinañ ci dinañ ci mën a waxtaan ak xale yi. ay experts yuy waxtaan ak ñoom ci domaine yu bëri comme domaine yi ma tudd sànq domaine financement yooyu ci ci thématique yi la euh, ci domaine sécurité aussi te sécurité ak intelligence artificielle bien sûr yooyu aussi ci thématique ci thématique yi lay bokk ak aussi l'implication de l'intelligence artificielle ci mobilité c'est-à-dire nan la ñuy mën a jum jumtukaay intelligence artificielle pour mieux développer notre notre mobilité donc yooyu yëpp c'est des thématiques qui qui seront développées aujourd'hui à travers ce panel yoo xam ne ñu koy animé c'est ay ay xam-xam loo xamante ni maanaam firnde nañ seen xam-xam ci ci ci domaine bi donc ñoom ñoo fi nekk pour pour pour animer thématique yooyu. alors gis nañu ne nag am na ñoo xam ne ñoo ngi ci wàllu entrepreneuriat comme yéen nekk ay jeunes entrepreneurs mais. am jafe-jafe xëy na yu bëri wala financement ak yeneen ñu nekk au bord du découragement peut-être yéen MEDES cercle des jeunes entrepreneurs euh, lan ngeen am comme solution pour ñooñu lan ngeen leen di proposer lan ngeen leen di wax pour que ñu résister parce que tey auto entrepreneuriat quand même euh, kenn weddiwul ne bokk na ci solution yu incontournable yi pour que wàllu problème mu xëy ndaw ñi ñu ñu ñu saafara ka dernier recensement de la population bi am deux mille vingt trois bi la population xam nga ne emploi état mënul mënul jox ñëpp emploi privé bi mooy joxe emploi te privé bi sax munul jox ñëpp emploi donc il a un cadre incitatif qui a été mis en place boo xamante ni dina permettre jeunes yi ñu développer tey boo xoolee dans le cadre du MEDES jeunes yi nga xam ne dañu bokk ci MEDES dañu am occasion bokk ci benn organisation patronale boo xam ne avec la vision de son président dafa mettre en place benn cadre incitatif boo xamante ni dafay permettre jeunes yi ñu ñëw bokk ci ci ci organisation patronale bi et loolu c'est une occasion pour les jeunes parce que euh, avec avec les exigences d'une organisation patronale Euh, bu ñu mettre cadre bu mel ni donc dina permettre jeune bi mu ñëw bokk ci pour son développement parce que ñi bokk ci ñun ñi bokk ci cercle cercle des jeunes entrepreneurs gis nañ développement bi mu ñu apporteel mm. par rapport ak bi ñu bi ñuy évoluer sans sans sans sans sans ce cercle là donc loolu noonu li ko permettre mooy cadre bi ñu mettre à notre disposition que ça soit sur le plan de l'information sur le plan de l'accompagnement parce que du information rek ceux qui ceux qui font partie du, du cercle sont très bien accompagnés donc loolu noonu dans le cadre de, dans le cadre de de de l'information dans le cadre de l'accompagnement technique donc expérience bi ñuy bi ñuy capitaliser foofu dafa leen di servir pour mieux développer leur leur leur, leur entreprise et pour mieux se développer en tant que en tant que entrepreneur. kon yenn problème yi yeneen jeunes entrepreneurs yi di am yéen ñu bokk ci euh, cercle des jeunes entrepreneurs amu leen ko. mu mënuñu ko am parce que xam nga entrepreneur yi problème bi ñuy gën di am mooy information maanaam nan la ñuy def bam financement. nan la ñuy def ba defar projet bi nan la ñuy def ba lii te loolu noonu information yooyu noonu cercle bi da koy mettre à ta disposition à travers le MEDES. parce que xam nga le MEDES euh, est euh, fait partie est partenaire avec toutes les politiques de développement et au niveau du MEDES il a des experts yoo xamante ni ne serait-ce que seen expérience rek mën na la permettre nga développer sa sa sa sa activité donc moo tax bokk ci cadre bu mel ne le MEDES nga xam ne ay borom xam-xam ñoo fi nekk ñoo xam ne dañu xarañ dañu mettre expérience donc boo ci bokkee forcément expérience boobu dañ ciy bénéficier pour développer sa sa dugg ci message mooy jeunes yi nañu éviter di di évoluer en en en en singleton cest à pas évident c'est pas évident parce que information bi ngay am doo ko am même pour financement pour nga am ko foog nga am toutes les informations qui te permettent d'accéder à ce financement là mm-hmm. si tu n'as pas ces informations là tu peux pas accéder à ces financements là et cadre yu mel ne dafay mettre à ta disposition te cette ce, ce, financement-là et surtout da mettre à ta disposition à temps cest es au courant du fonctionnement de l'économie tu es au courant de tous les cadres yoo xamante ni mën nga ci mën nga ci profiter pour développer sa activité donc euh, je pense que c'est une c'est une xam ne jeunes yi war nañ ko mën a saisir bon heureusement que au niveau du du MEDES du SEC on voit ñi ñi saisir opportunité boobu mais c'est un appel que je lance aux jeunes que de, de saisir fi nag loolu yëpp opportunité yi ngay wax yooyu yëpp jël géej gi pour dem bitim réew ñooñu euh, naka nga comprendre eh, surtout ni ñu gënee bëri fan yi euh, di dem bàbbeeku presque mun nañ ko waxee noonu euh, wutali Espagne wala wala yeneen réew naka nga comprendre eh, phénomène bi. waaw ñooñu bon xam nga bon je pense que c'est un problème c'est des c'est des jeunes qui n'ont pas confiance aux politiques de développement de l'État et loolu manque de confiance boobu du ci état bi mais ci ñoom la en fait ils n'ont pas suffisamment les informations Voilà, c'est ça. aussi, on peut, on reprocher quelque part ça. Mais quand même, il y a des cadres incitatifs, il y a des cadres qui, qui, sont, qui sont là. Et aussi, c'est le jeune qui doit aller à l'encontre de l'information. Par exemple, les jeunes qui, qui sont dans le cadre du MEDES, ils ont eu peut-être l'opportunité d'être dans ce cadre-là qui leur permet de saisir cette information-là. Maintenant, les jeunes aussi, doivent, aller à, l'encontre de l'information. ñu mën a jàpp rek dem bi mooy solution bi. parce que dem bi du garantir réussite bi. Moi, quand je vois un jeune qui, qui pour wala nga dépenser benn un million pour voyager pour man c'est pas un problème de moyen pour man problème de perception la rek. Hmm. parce que xaalis bi ngay bi ngay dépensé am na ñoo xam ne dépensé nañ bien moins que ça fii ba pare mu permettre leen ñu réussir. donc euh, pour moi c'est c'est ça le problème quoi il faut qu'il qu'il y ait plus confiance ñu ñu gën a gëm seen bopp d'abord ñu gëm seen dëkk. ñu gëm ne mën nañ tekk fii ci dëkk bi c'est vrai que même bu état bi garantiwul lépp il y a les les moyens yoo xam ne les voies yoo xam ne mën nañ ci jaar pour ñu ñu ñu réussir c'est pas facile nag c'est pas facile du tout mais quand même xam nga entrepreneuriat dafa laaj avant tout courage dafa laaj courage ak persévérance persévérance mooy maanaam même boo defee bu yàqu rek. bul ne loo baaxul da ngay defaat di defaat. a fait loolu mooy persévérance quoi mënul xëy sotti waaw c' est c'est-à-dire c' est une c' boo xam ne dañ koy accumuler après mu permettre la nga réussir mais xam nga boo bëggee xëy xëy rek nga réussir tey tey entrepreneur entrepreneur du daxe loolu quoi xam nga entrepreneur sénégalais yu mag yi mën nañ fi ne loolu donc mënul yomb alors pour ñëwaat ci salon bi gis nañu ne au départ xëy na euh, waa Sénégal la woon mais après ubbi ngeen ko tuddee ko Afritech waa Afrique ñëpp di si ñëw depuis lors euh, naka la ñu mun a nattee tolluwaayu salon bi dayoom tey ba ngeen ko Afrique ba léegi euh, fu ñu ko mën a xayma. waaw li ko cest loolu li ko waral mooy importance bi ndaw yi jox salon bi parce que xam nga salon bi année année tey jii maanaam ñi ngi ñi ngi célébrer ñi ngi def sixième édition bi et chaque année dafay gën a performant donc importance boobu dafa dafa ndaw ñëpp dañ ko saisir ba dañ ko dañ ko def seen agenda. et dafay am ay success story da ngay gis koo xamante ni ci salon bi la développé woo donc kooku aussi dafay jox envie yeneen xale yi nga xam ne amuñu woon occasion bi ñu bëgg a def comme moom donc looloo waral salon bi law et puis mu nekk benn événement boo xam ne maintenant bon c'est c'est ça c'est c'est c'est c'est c'est tout l'Afrique donc xale yi ci ci ñëw sax di wane seen projet da ngay gis ne am na ci ñoo xamante ni daanaka duñu ay duñu ay sénégalais. lay gërëm euh, fàttali ni yow yaay euh, coordonnateur cercle des jeunes entrepreneurs du MEDES euh, ñu ak sixième édition salon des startups di Afritech bi ngeen di amal ci altine ji tey ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Fatou man maa leen remercier merci beaucoup.